yeah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi nii ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaar di leen màggal di leen damoo di leen bëggee bu wér kontaan ci yéen ñu ñëw di waxtaanaat ci tolluwaayu réew muy Sénégal lu ñu bokk mënu ñu ko séddoo ñu koy faral di defee rek saa su ne bu amee lu jara wax ñu génn wax ko sinon au cas où ñi leeral sénégalais yi bu ñu weesoo loolu bu fekkee amul lu ko jar aussi ñu toog toog taataan ay information saa yu génnee rek dina am ci lu ñu nekk walla réew mi commencé jaxasoo ci lu ne ñu génne leeral donc yaakaar naa ni on va parler de la presse on va parler de lan mooy yëkkati gars yi jamono ji ñu bëgg a bës gouvernement de Diomaye Faye a embuscade jaxase leen nu mu gën a gaawee parce que c'est c'est des choses yoo xam ni processus bi yàgg na bu ma leen expliquer di ngeen comprendre lan moo indi aussi le général Kandé bi wax ji am tout ça dañ leen expliquer réellement et général Kandé moo nekk kan lan la doon def lan moo tax euh, maanaam gars yi waa APR yeeg journaliste yeeg yooyu bëgg accentuer ci moom euh, pour mënuñu déstabiliser quand même général Kandé mënul dara mënu ko dara ay ñu ko gën a tàng fi nekk ay chef am ñoo fi nekk ay ñu ko gën a jàqaray ñoo fi nekk mais dafa am lu ñuy liggéey ñu bëgg ko utiliser parce que moom aussi loolu da ko arrangé loolu yëpp nañ ci ñëw léegi nag yaakaar naa ni yéen xam ngeen ni presse bi en général mbañeel bu ñu bañ Ousmane Sonko dafa jéggi dayo nit munu ko natt foo ko natt rek weesu na ko depuis bu Diomaye fay jëlee nguur gi avant élection yi APR dañu ànd ak presse bi ñu diaboliser Sonko ci façon xeetu diaboliser bu dul diabolisation wu dëmm APR presse bi nag bu ñu leen koy wax quatre-vingt-dix pour cent waa APR ñoo ko moom quatre pour cent Sénégal boo jëlee boo jëlee quatre-vingt-dix pour cent ci presse bi waa APR ñoo ko moom ñooy financé patron de presse yi ñoo leen di jox bu ñu manqué lee xaalis bu ñu fayee seen i euh, employé ñoo leen koy jox except ñoom ñoo leen di nourrir c'est une presse alimentaire une presse à la solde de Macky ak i ñooñam ministre boo ci gis presque am na presse am na euh, maison de presse bu muy liggéeyee moo tax jamonoy Abdoulaye Macky Sall li mu am ci presse musul am ci jamono c'est pas parce que liberté de la presse déedéet ñoom ñoo ñoom ñoo créé presse bi ñoom. presse bu bari Sénégal ñu ci bari quatre vingt dix pour cent waa APR ñoo leen doon alimenté ñoo ko créé maintenant. ñu waaja def seeni i lobby ne dañuy xeex Ousmane Sonko luñ ko jiiñul pour pour bañ a revenir aat ci loolu lu ñu ko jiiñul ci ñaaw teef amul viol agression violence lu ne fu ne jaareel nañ ko fu ne jabaram ñaareelam euh, aji saar waa ji terroriste la waa ji salafiste la waa ji góor jigéen la lépp presse bi la loo leen dégg rek ñu wax Sonko rek amul nit bu tël rek wax ko Sonko waa presse bi léegi def nañ ñu ne pour éliminer ko munuñu ko waaye bàyyiwuñu léegi nag ñu collaborer comme noonu ni ñu koy defee njëkk nañ ko def parce que déjà buleen leen fàtte ni bi nga xam ni. Ousmane Sonko ak le président Diomaye fay ñi ngi génn ci kaso bi ma dambal Diagne moo ko annoncé moo ko annoncé tey lañuy génn telle heure gars yi wàcc affaire mu donc lépp donc il était à jour avec le gouvernement sénégalais di liggéey ak ñoom à deux cent pour cent di leen fàttali nag ma dambal Diagne ma dambal Diagne laa koy woowee man di leen fàttali ne du nitu dara greffier la greffier la greffier tribunal greffier comme secrétaire loolu la mu ñëw dugg ci journalisme chantage ak manipulation lu mu sa def Abdoulaye Wade dóor na ko ci kaso bi ndax chantage ndax da doon chantage Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade mere ko toroxal ko kon loolu da ko mos a dund en 2012 Madiambal Diagne dafa loué woon appartement boo leen demee cité Ahmadou Bamba bu nekk wetu fii nga xam ne moom mooy euh, cité Bissap wala ñu ne université Dakar ba am na benn cité bu nekk foofu bu tudd cité Cheikh Ahmadou Bamba boo duggee fa foofu Madiambal Diagne foofu la amoon ab puqus ak jabaram ak i doomam mu loué ko. Sénégal ba Sénégal daj en 2012 amul benn terrain bu ma Dambal Diagne am bu mu jógee foofu comme da doon santaane Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade gën ko sadik moom dóor ko ci kasa woon ko ne man maa la gën a sadik gi ngay def nii yow man doxu doxu du dox ak man Macky sàll bu mu ñëwee mu commencé chantage Macky Sall chantage boobu mu doon chantage Macky Sall moo tax amul fu makki Sall ak ay ministre am mu sa dagg terrain te daggaluñ ko ko amul fu Macky Sall mu sa dagg terrain te daggalu ko partout Sénégal amul fu terrain am ci dakaar te ma Madiambal Diagne mu mujjee doon un délinquant foncier bu mag sax fépp mu am fa terrain toog fu ñu koy fu ñuy dagg dañ koy daggal parce que day bind. te lu muy bind bu leen bu leen nar attaqué ko ñoom dañuy dañuy jiite ay bandi lañ te bëgguñu ko wax ci ñoom donc dañ ko doon daggal terrain fa partout mu am ay terrain xaalis bi à gogo muy encaissé donc di leen liggéeyal sale boulot vraiment lépp lu xeetu saleté def na ko pour éliminer Ousmane Sonko yàlla moo ko sottilul mais amul yëfu dëmm lu ma jàmbal jaañ deful pour toroxal Ousmane Sonko pour yàqu ko ba ñu dem ci élection yii bu ñu demee ci élection yi Diomaye fay gagné ki nga xam ne mooy Amadou Ba moom Matambal Diagne en complicité ak euh, Mamadou Ibra Kane en complicité avec Kandé bi Kandé bi ngeen di dégg général bi ñu ne yoo ñoom ñu jàpp Amadou Ba di ko forcer pour mu dem ne gagné wuñ ko pour indi quoi indi maanaam basculer réew mi daal kaw foofu la njëkk a tenté foofu. ils avaient parlé avec ce Kandé là général Kandé naa leen affaire yu bëri gis ngeen général Kandé mii il est dañ ko defar de toute pièce du dara c'est militaire têtu lu armée bi yëpp wax samay enquête têtu indiscipliné et loolu la bi yëpp wax têtu indiscipliné et général Kandé ñu ko mun fuuf mun ko lekk seefe ko ñoo fa gën ko sadi mais moo doon informé moom ci boppam général Kandé moo doon informé ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne ñoom Madiambal Diagne ñoom ñoo créé général Kandé ñoom ñoo ko créé ñoom ñoom ñoo ko créé jàpp kii ko ngantal ko ponkal ko xool fekk du fu fifteen fifteen du ko bu ñu jàppee rebelle yi jàpp euh, suñu militaires ba rayoon ñaari booy quatre booy dossier boobu yére a ngi fàttaliku loolu non ci jamonoy Macky Sall ñu dugg biir Gambie naan mission CEDEAO ñu nangu seen oto bi contrôle nangu seen oto bi rey ci kaat jàpp ñeneen booy Madiambal Diagne moo génn ne général Kandé pare na nee na bu ko Macky Sall joxee ordre muy mu jeexal affaire terre mu jeexal ay affaire rébellion day leen di jeexal nangu militaire yi ñangal général Kandé jooy daf ko benn genre jinne boo xam ni moom day ñëw rek ne frux boobu Madiambal Diagne moo ci doon bind général Kandé bii la doon promouvoir si vous vous rappelez très bien quatre militaires yooyu ñu jàppoon booy ñu jàppoon tàllal leen nii ñu mel ay xale ñu futti leen nangu seen oto général Kandé boobu ci la ma Madiambal Diagne comme ñoom yàgg nañ liggéey moom ñu waxtaan seen biir muy ma Madiambal Diagne def ci journalam di promouvoir général Kandé ne général kande moom gars yi dañ koo kii rek mais bu ñu ko jiitalee mu affaire Casamance da koy jeexal da koy jeexal da koy jeexal tàkk fekk lépp manipulation la lépp <laughs> manipulation ne moom da jeexal récupérer militaires yi ñu jàppoon et cetera et cetera fekk xoolal général Kandé bu jóg armée bi maanaam du fa du du fa dara du fa dara mais il est fait de toutes pièces gars yi dañ ko defar léegi nag mais général kande lui aussi il travaille en collaboration ak ñoom ma jàmbal Diagne avec la presse moom dafay financer ci presse bi. il finance bien ci presse bi ci la li lu mu am tur bu mu am nii presse bee ko ko jox presse bi moo ko jox day financé ci presse bi léegi nag dafa yàgg liggéey ak ma Madiambal Diagne moom ci boppam moo doon fenal Sonko général Kandé bii dégloo ngeen Madiambal Diagne ne Ousmane Sonko nekk na maire Ziguinchor déplacé wu dem ci rebelle yi bu mu demee ci rebelle yi kii mooy wax de madame Baldiane de ne Ousmane Sonko dafa dem ci rebelle yi bu mu nekkee maire de Ziguinchor négocier waxtaan ak ñoom pour ñu préparer ay coup ay coup d'état ay ay ay rébellion et cetera et cetera mais traversé na sax ba dem Guinée <laughs> loolu lépp ay waxi ki nga xam ne mooy Kande moo koy jox moo koy jox ki nga xam ne mooy madame Baldiane madame Baldiane di ko véhiculer Mademba Diagne li muy véhiculer noonu ngay gis ñu mu loolu général Kandé moo sosal Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko moo déplacé wu dugg dugg Casamance wax ak rebelle yi teg ak ñoom dil ba pare dugg biir ba gisanteeg dugg ci biir euh, lu lu mu tudd gi Guinée Guinée Bissau dem na sax ba Guinée Bissau loolu ngeen doon dégg noonu coow loolu yëpp Mademba Diagne créé woon loolu y avait général Kandé derrière il travaillait en parfaite collaboration bëri na information yoo xam ne dafa génn général Kandé ci boppam moo ko jox ki nga xam ne moom mooy euh, madame Baldiagne léegi nag loolu la ñuy jéem a xoolee moom nu muy mun a manipuler loolu moo tax buñ ko ñoom tamit gars yi ils à jour euh, ay ay xam am nañ information sec donc général Kandé est fabriqué de toutes pièces par la presse sénégalaise. léegi nag ma ne la général Kandé. ci boppam et ami intime de Moussa Fall ñoo defandoo formation militaire général Kandé Moussa Fall Alfred Maysa Sele ñii yëpp ay waa APR lañ APR Maysa Sele Ndiaye APR la général Maysa Sele Ndiaye général Kandé APR la cent pour cent bu mu as bu ko assumé di leen liggéeyal Alfred même chose c' est gang Moussa Fall c' gang ñooy nekkandoo suba ngoon bu dégg bëccëg di naan ataaya di waxtaan ay nitu APR lañ ñoom ñooy génne information jox ma Dambal Diagne génne. yaa ngi may dégg maintenant comme ñoom. fexe nañ ak Amadou Ba bu dul woon Macky Sall dañuy siisu Macky Sall moo woote guddi goo woxoon naa leen ko saaga ndey Amadou Ba la saaga. parce que moment boobu ñoom ma dambal jaañ ñi ngi koy accéléré génnal génnal nga nga nga bañ résultat yi neen résultat yi amul gagné wuñ la génnal ba ab ma dambal jaañ moo doon annoncé moo ne tey ci guddi Amadou Ba dina génn. mooy jour élection yi bu mu jeexee ba ñu compté ba nga xam ni ñëpp xam nañ ne Diomaye moo gagné mu moom mu def communiqué moom Madame Bal Diagne ne ne Amadou Ba rejeté na résultat yi te dina génn def live conférence de presse coow li ne kur kur kur kur kur Macky Sall mi ngi fexee pour mun a joindre Amadou Ba ne ko teg ko ci suuf boobu ñu ngi koy accéléré ñoom Mamoudou Ibra Kane Madame Bal Diagne Souleymane Kandé général Souleymane Kandé ñoom ñëpp ak gaam ñi ngi koy gëmloo ni bañal bu coow ci jibee ñun dañuy génn te bu coow li ñun ñooy nangu ñun ñoo koy nangu c'est-à-dire duñ ko sax doom ñoom ñoo koy nangu ñoom maanaam armée bi loolu kande mooy gëmloo Souleymane Kandé que ñoom ñoom armée bi moom pare na ak ay booyam armée pour ñoom ñu coup d'état bu boobaa bu coow li bëree ñoom ñu coup d'état Macky Sall jóge fa ñoom Sonko du ñu toog comme saa léegi gars yi ñoom ñu toog te ñooñu ay nitu Amadou bale Macky Sall moo fexe ba jot Amadou baas dafa tàkk ci kawam saago ko ndey na ko teg ko ci suuf bu ma la gisee ngay wax maanaam Amadou Ba comme ragal la Amadou Ba reculé. le lendemain ñoom ñu génnaat Madiambal Diagne génn guddi gi dafa annoncé woon conférence de presse génnaat ne suba après mu ne suba suba conférence de presse suba la. la bu ko Macky Sall jotee ba saaga ndeyam xëpp ci kaan ci la arrière moom Amadou Ba léegi. kii nga xam ne moo Jambal Diagne doog a ñëw nag ne leen noo graaw kon jeex na quoi <laughs> Amadou Ba accepté na loolu lépp nag c'était benn lobby buñ préparé woon ne nu ñu mën a def rek ba Ousmane Sonko ak Diomaye du ñu toog mais ma Jambal jaañ amul haine bi ci Ousmane Amadou Ba de amul haine bi ci Diomaye de Ousmane Sonko la bañ ma Jambal Diagne c'est-à-dire bu mu doon lekk Ousmane Sonko da koy teg sur le plat di ko daggate di ko lekk haine viscérale la am ci moom. munu ko nangu moom Matamba Dia munul nangu ni Ousmane Sonko mi war na dund. léegi nag loolu lobby boobu noonu nga xam ni am na ay bon général Kandé mi ngi ci biir lobby bi Alfred mi ngi ci biir lobby bi Maïssa Sele mi ngi ci biir lobby bi. Moussa Fall mi ngi ci biir lobby bi parce que boobu Moussa mi ngi fi parce que ñoom yaakaar nañ ni général Kandé Moussa ñoom ñëpp ñi ngi ci biir Maïssa Sele Ndiaye mi ngi ci biir. et cetera et donc ñoom ñoom jàppoon nañu ñooñu bu ñu boolee bu ñu mun nañ fexe ba bu Macky Sall bëgg a siisu ñoom ñu dóor coup d'état tëbal Diomaye ak Sonko nga xam duñ fi toog ñoom ñu mun a ñëw toog wala Amadou Ba ñu mun a toog après defaat ay élection sept élection jox ko Amadou Ba donc ñoom ils ils vraiment prêts pour un coup d'état Madame Ba Diagne mi ngi woon ci biir takk ci rëpp rëpp ak ban léegi nag gang boobu nag ñoom dañoo dañoo yàgg dañoo yàgg quoi gang boobu léegi loolu échoué na Macky Sall xëpp ci kaani Amadou Ba bi nga xam ne moom lañ ngemboon ragal daw ñu bàyyi noonu mu sedd ñu jël élection yi jox ko ki gagné muy jomaay jomaay fay ñu ne noonu duñ bàyyi noonu ñu tëbal Moussa Fall parce que Moussa Fall na woon bu yàgg. sal bulo moo ko fi bàyyoon ñu tëbal Moussa Fall mais nu ñu xamee ni mussa Fall doon def sal bulo noonu ñoom gouvernement bi noonu la ñu xamee ni mais ki nga xam ne mooy Souleymane Kandé noonu la mel mais comme Souleymane Kandé nag moom atam des na mais loolu moo tax ñu jël ko écarté ko mais ku doon jéem a raylu la ku doon jéem a bu def ci ay coup d'état ku yàgg a fenn ku yàgg a boolog presse ñuy liggéey mais saa waay boo ko xamee da nga koy bàyyi sa léegi ñoom ma Mademba Diagne bu ko agressé ñoom Diomaye Faye ne ko daw da nga fi bàyyi Kandé par force ah <laughs> depuis quand la benn président amul droit di nommer civil et militaire parce que constitution moo ko wax président de la république jël la yóbbu la ñu ñu ne non dafa war a dëkk loolu noonu moom décret boobu da koy yóbbu cour cour suprême mais c'est du n'importe quoi ça kañ la général Kandé yàpp sénégalais yi ba am fitu sax lu day ni seen président bu ñu fal à cinquante cinq pour cent teg ko fi protéger ko benn espèce général taxaw nan day défier un président bu boobaa il aura affaire au peuple sénégalais Souleymane Kandé n'aura pas affaire je te le dis ah il aura affaire au peuple sénégalais je le dis haut et bu mu ne rey tout le peuple sénégalais na ñëw rey leen loolu ay réewande la ay loolu sa n'existe même pas et quand on n'ose pas taxaw ak sénégalais yi naan leen xoolal damay défier le président billaahi bu ko defee du du yeewu Sénégal bu ko defee du yeewu senegal moom depuis boobu ñoom ma Dambal Diagne taxaw former seen clan Mamadou Ibra Kane bu bu Amadou Ba perte Madiambal Diagne bu Amadou Ba perte ñuy siisu dem daj dem bëgg a jaxase armée bi jaxase armée bi ci à travers Souleymane Kandé presse manipulation mensonge désinformation face à un peuple intègre digne loyal et souverain ça passera pas ça passera pas de je te le dis dañoo tàmm comme c'est une presse alimentaire dañoo tàmm Bougane sax c'est c'est le cadet de nos soucis Bougane il a perdu mu jël telem boobu daf ko telu siisumaan jël média di média daf ko média rancunière ni saagaaka wax ju ñaaw ñooñu bu ñu Bougane da doon def ji fii jaafaa jëf far mu cóol yàlla bàyyi ko fa c'est-à-dire kaarama xool day niis day nangam ak calculam yooyu gars yi na ko furux yàlla na ko toogal foofu saytaane nga furux loolu moo ko moo ko merloo Bougane moom moom moom moom mer ngembu la mer ngembu je l'ai toujours dit Bougane musul am parenage parenage gën a ndaw ci àdduna musu ko musu ko dajale 1832 ba léegi élection yu am élection locale la musul am parenage musul am parrainage kon mer ngemb la kooku moom dafa siisu rek siisu kooku moom teleem ak rajoom xanaa ñu tëj ko munoo leen fexe ba mu wax ci lu rafet kooku moom dafa perte ñàkki ñànki ñàkki ñànki mais comme da doon jiifi jaafaa jëf yàlla bàyyi ko fa ne ko àdduna du jiifi jaafaa jëf da ngay am principe da nga am vision comme yow ab caga caga politique nga da ngay taxawaalu nii wëndaalu laal et cetera et cetera <laughs> donc euh, vraiment il n'est pas intéressant lépp dóor rek lay def dóor kese lay def dóor kese moom kooku moom dóorkat la mais kooku gis nga ngandal presam sax amul njëriñ parce que su boo ko joxoon tuuti weccat sax mu noppi bu kooku dóorkat la donc tardé nañu léegi comme ma jàmbal moom di réew mi daf cee am ay junni junni terrain ak juróom-ñaar am ci ay junni junni kër ak juróom-ñaar ci ab journaliste simple ñuy financé muy toog muy dox donc moom ci chantage lay dund ci manipulation ci escroquerie ay plume achetée donc comme gouvernement bi ñëw na ñu doon ay mercenaires de la plume ñoom gouvernement bi lan nanguwul loolu daf na leen jub jubal jubanti ñu taxaw ne léegi dañuy former bouclier humain pour xeex ko mais chaque jour loolu laa leen wax naan lobby pour xeex ko il faut que peuple bi doon bouclier humain maintenant comme nu ma leen waxee léegi ay di média génn ay observa ma Madiambal Diagne génn boobu ba léegi fan lañ commencé fan lañ commencé manipulation yi bu Sonko faloo ba léegi ma jàmbal ma jàmbal mayul jàmm Ousmane Sonko taag ñu ne wérëj mu commencé jóg waa Ousmane Sonko xamul xamul gouvernement gouvernement Ousmane Sonko warul dox ci ci tapis rouge mais sarap luy tapis rouge yéen lan mooy tapis rouge quoi en bu mu enal Ousmane Sonko loolu wax jooju Madiambal Diagne moo ko génne tak premier jour nga na nga Sonko na wàcc si suuf waay saraf tapis rouge Diomaye bu doonee président Ousmane Sonko tax amul lu Diomaye lu peuple sénégalais may Diomaye te may ko Ousmane Sonko ci barkey Ousmane Sonko la Diomaye faloo bu Diomaye naagu woon ñaanuñu ko yàlla melul noonu bu ko defoon Sénégal yëpp bàyyi ko ci lay xam ni ñu ko Ousmane Sonko la ñu fal Macky Sall moo ñu xañ Ousmane Sonko moo tax Diomaye toog fi tey Macky sàll moo def lu ñaaw lii moo tax Ousmane Sonko Diomaye toog fi tey sénégalais yi Ousmane Sonko la ñu fal moo ñu falal Diomaye donc amul fu Diomaye di taxaw te Ousmane waru fa taxaw ñun peuple sénégalais bi ñoo ko réclamé parce que ñun peuple sénégalais bi ñoo fal Diomaye ndax Sonko kon Diomaye amul lenn lum ñu mën a woon lu tax ñuy bàyyi Sonko. kon jom bul Sénégalais lu ñu bëgg mooy Diomaye jiite Sonko tapi bi Diomaye Sonko dox Diomaye topp ci donc di yéen war a mun a orienté ni ñu war a doxalee ñun peuple senegal bi dañoo génne sañu carte sànni ko ndax Sonko kon Diomaye dafa falu ci barkey Sonko bu yàlla bu gaa yi bëggee yenentu bi yàllaa tax yenentu bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko bëggee ba topp ko yàllaa tax bu ñu bëggee Jésus Christ yàllaa tax buñ doon xool dañ naan Sonko mooy yàlla jomaay mooy yenentu bi bu ñu voteelee yenentu bi yàlla bee tax kon kenn mënul jël Ousmane Sonko di ko def ci wàcc ñu loolu kan moo ko njëkk génne Madiambal Diagne nan day jàngal Sonko fu ñuy wàcc ak lan mooy tapis rouge bu sénégalais xol bu ñu merlooy sax dëkk dëkk bépp la ñuy def tapis rouge xanaa xamu leen Sonko fan la toll Sénégalais yi bu ñu wax waxu tapis rouge Sénégalais ñoo dem jëndi ay kilomètres tapis rouge fu Sonko di dox ñu tàllal ko tapis rouge. Sénégalais pare lool pour jënd tapis rouge di ko teg ci dàll Sonko buy teggee tànk ñu tegal ko tapis rouge muy teg jëm ci àdduna ñu tegal ko tapis rouge. parce que Sonko c'est un international toute l'Afrique sant Sonko. ku xam senegal Sonko nga xam mooy personne ak personnage boo xam ni moom moo gën a siiw Sénégal ba senegal daj kuy dox Sénégal Sonko la gën a siiw képp ku doomu aadama bind Sénégal ngay dox senegal Sonko la gën a siw ci Afrique ak ci monde bi moo gën a siiw Diomaye moo gën a siiw sëriñ yi moo gën a siiw kuy dox Sénégal loolu yàlla moo ko defal. benn ma dambal jaañ buy sii su toog ay foofu la njëkk a tàmbale ay warul dox ci tapis rouge ay warul tolloog jomaay ay warul ay waxi ay waxi dof lépp pour déstabiliser lépp pour yàq lépp pour indi camouflage euh, cafouillage ci xelu sénégalais yi sénégalais yi ñoo réclamé ñoo ne Sonko doxal ci tapis bi tapis bi suñu tapis la ñun Sénégal ñun sénégalais yi juddoo fi yaroo fi màggee fi ñun ñoo la sant yow Ousmane Sonko si suñu xol bu sedd guy doxal ci tapis bi njaabal ci tapi bi nu mu la neexee laa la wax njaabal ci tapi bi ñun sénégalais soo boo saa yooyu dox ci tapi bi suñu xol di sedd tapi bi suñu tapi la suñu tapi impôt la suñu tapi taxe la kenn mayuñu impôt fiscalité bi ñun ñu koy fay bokkul ak bandi fiscaux yooyu noonu bandi foncier yi bandi financier yooyu noonu amuñu lu ñuy wax bu leen seen yaay juree fii ba léegi dañuy utiliser euh, état bi di lekk deretu état bi di naan deretu état bi di lekk yàpp état bi ñun ñi nga xam ne ñooy ñàkk di jox réew mi di fay ay taxes ñu ay délinquants fiscaux njama ne ñun ñoo la sant doxal ci tapis bi nu mu la neexee njaabal ba xam baay ba xam baayu Matamba Diagne jur na fi ko war a mun a taxaw ñun ñun peuple bi bëgg dara moom mu mun ñu ko xaj foofu leen tàmbale ci waxu tapis bu day ni xeex bay bëgg a dee benn journaliste taxaw di orienté nit ñi ay waru dox ci tapis ku nekk jóg waru dox ci tapis lan mooy tapis xanaa du nit a defar tapis luy tapis buy dox waru tolloog moom ñuy waxati ñu ñëwaat tëll waxu góor jigéen Sonko def discours bu phénoménal monde bi yëpp jël ko xam ni Sonko dafa déclaré guerre français yi nga xam ne dañoo namp français ñoom gis ni lii déclaration de guerre la journal Le Monde Jeune Afrique Intelligent ak monde bi yëpp bind na Sonko dafa déclaré guerre homosexualité homosexuel ba ci fii Canada ñu bind lépp. ñu namp français ay ñoo xam ni seen baay séeréer la ñii joolaa ñii wolof ñii saraxulle ñoo taxaw ne ñoom ñoom dañoo comprendre français boobu ba génn <laughs> dafa waaye dafa ma jàmbal jaay génn noonu lii sa garaaw dafa dafa ànd ak fa góor jigéen kañ kañ la sa baay nekk français yow ba nga namp français boobu mun a gën a xam Baudelaire wala wala ki nga xam ne moom mooy art euh, euh, lu mu tuddati wala euh, écrivain français yo ñu nga xam dañoo namp français ñi namp français ne kii daf leen woo guerre ñi nga xam ne ñoom ay weenu séeréer lañu nàmp joolaa wolof taxaw na ñoom ñoo gën a dégg ñu nàmp français français dëpp français bi xamuñu dara fu kii parce que loolu yëpp madame Bal Diagne mii la ak journal corrompu yi mi ngi mel ni may xëccoog ab français di xëccoog man wolof ma a ndàmpaay li ah ndàmpaay li man wolof xam luy ndàmpaay li français bu ma yàpp boo xam ni baayam baayam du wolof yaayam du fara wolof di xëccoog man ndàmpaay ah ay sëtu Victor Hugo ay sëtu ay ay ay ay ay yi ñoom ñëpp gis ni casus belli boobu noonu mooy déclaration de guerre Kadhafi journaux yi traduire ko comme quoi que Sonko dafa dafa woote maanaam Sonko moom dafay xeex góor jigéen ñi ñii seen baay nekk yi wolof séeréer joolaa naa fekk bay bëgg a dee bëgg na ñoo gën a dégg français mais loolu ñoo gën a dégg français français yi ñoo gën a dégg français monde bi yëpp gis ni déclaration de guerre la ko def senegal malhonnêteté intellectuelle ay nit yoo xam ne dañoo namp si ay weenu séeréer joolaal complexé bëgg a dem di xëccoog borom français yi borom borom maamu Molière yi mais c'est incroyable là booy wax français bay sënk xëccoog doomu surtout Molière nga mun a lem ba mu rongo toog te xam ne langue bi moo ko nampoo ko créé woo ci dictionnaire bi loolu liir yëpp sa maam mosu cee participé seen maam yi ñoo ko bind dictionnaire bi ngay liir nii ñoom ay ñoom ay ñoo ko créé surtout Molière yi ñoo ko créé ngay bëgg a xëccoog ñoom toolu ba mu jeex tak sama mosu ci participer moo ngay bëgg a xëccoog ñoom français sët yooyu wax ni kii daf ñu woo guerre yow complexe que nga bugg a taxaw bu ko définir neneen lépp par la malhonnêteté intellectuelle lépp Madame Bal Diagne foofu cóol ci lañ dugalee baa jaxase ci kaso bi ndax dof la foofu cóolati sénégalais ne de mënu leen ñoo nax ñu ñu continuer ne duñ bàyyi